opposant c'est pas le man mm-hmm. benn problème laa am ak sama conscience maanaam li ma gëm li ma gëm laay wax réew mu jógee 7 pour cent de croissance dem ba 0,7 pour cent de croissance réew moo xam ne nii par exemple rien que la douane indicateur la daan encaissé plus de 2 milliards par jour léegi mënatul am 1 milliard mm-hmm. réew moo xam ne nii dem nañ ba en on se projette sur 2000 benn secteur moo ñu mën a sauver mooy l' réew moom mi ngi ci problème. oui problème bu amee ci réew. ñi koy njëkk a yëg. mooy ñi nga xam ne amuñu dara. bi ne ma réew mi métti na trop. waaw non je suis pas d' accord la. réew mi métti na trop je te léegi bu loolu jeexee non non non non dem. non mais boo waxee loolu ba pare da ngay investigation nga war a teg ne malgré tout ça. le gouvernement de président Macky Sall s'est débrouillé avec ses relations avec ses moyens ba exécuter le budget Sénégal à pour cent c'est important de le dire aussi parce que dire ça au Sénégal c'est comme si vous êtes un, un deuxième guerre de l'opposition boo ne forme fii yéen Cheikh Yérim donc boo taxee nga wax loolu man me gêne alors me gêne de dire ça et vraiment ça parce que dama le veuille ou non qu'on le veuille ou non le budget du Sénégal fi mu taux de croissance bu dem ba zero virgule sept pour cent waroon na fekk bu bu doon na tey war na fekk tey produit yëpp yokk tout lépp a yokk na à la fois. mais mais mille milliards. mais au moins ñu ngi ko téye mille milliards lu muy jariñ. mais mille milliards mais fan nga jël fan nga jël loolu la loolu la loolu la finance Sénégal santé bi baax na. waaw mais bu ñu jëlee xaalis bi tey def ko ci mille milliards. zéro couche ba ba ba non ba ñuy yokk couvre ci monde bi le defal naa Cheikh bi dafa non li débat xel la. c'est important du doole xel la. milliards. mënoo ko jël ci xaalisu réew. ba pare te justifier après ne prix day jóg. xaalis boobu il mu jariñ dara. boo mënul continuer prix lu mu jariñ kon nga xam ni kon nga xam ne liggéey nañ ko. mais donc dama la bëgg a wax ni. li continuer li téye prix nga ne a wax ci Sénégal. oui ah mais eh, eh, eh, si c'était pas bien géré doo ko fekk xaalis Sénégal xaalis Sénégal moo téye prix oui mais parce que ça a été xaalis Sénégal a été très bien géré. je veux dire man mënuma nekk citoyen ci réew moo xam ne jël na 1000 milliards pour le Covid prix dafa war a yokk no dama ni dama ni nekk nga fi de 2012 à de de 2000 à 2012 chaque année nga dégg 5 à 6 produits yokku dans ce pays. looloo looloo tax ñu fal Macky Sall. waaw mais kon il gère bien nos sous. oui mais si le gère

l'argumentaire euh, euh est acceptable ou non. non que Badara le contexte Covid. maanaam sangam. moo expliqué ñu dugg. non man li ma li ma ko gisee li ma li ma ko gisee lu simple. Mm. ni ko Badara waxee macha allah rafet na. Mm. boo ko dégloo sax à la limite c'est même émouvant franchement ni mu ko waxee ak ni mu ko indeeg yëpp euh, mais au-delà de la dafa am benn réalité réalité bi mooy lan mooy réew. réew mu nekk ni mu soxlaa pouvoir la soxlaa opposition il faut nit ñi xam loolu opposition ba dara c'est pas seulement pour le plaisir. parfaitement c'est-à-dire que ni nit ki li pouvoir bi mën na liggéey la opposition war a liggéey nga xam réew dafa soxla contre pouvoir. tey da ngay gis réew yu bari yoo xam ne nii li tax muy dox mooy opposition bu taxaw bu takku buy mener la contradiction di def ay propositions di avancer affaire yi. opposition debout. voilà. donc Covid bi opposition bi dama jàpp ni ñu ngi leen gën a soxlaa sax en dehors du pouvoir. Mm. Ah ñu nekk force boo xam ni force de vigilance la force bu taxaw la taxaw ci bëgg-bëgg askan wi pare marche pare dox pare bind pare wax ci askan wi pare taxaw pare meeting pare def lépp c'est très important parce que crise justement li muy jariñ mooy ñu revenir au fondamentaux de la République benn deuxièmement. Euh, politicien boo gis mën nañ la nangul say calcul ak sa stratégie politique mais mënuñu nangu nag ci kaw loolu ngay ndax nit ñi parce que sa Seck bi muy wax daf ni 15 mois ngi nii maa ngi wax ak Macky Sall. te pourtant bi ñu ko waxee naan wax jeeg wax ji pourquoi Idrissa Seck waxul tout ça tout ça dafa génne ay formule am wax wax maanaam jaxase daal maanaam. c' est ça quoi cest à manque de transparence boobu mooy problème bi quoi mais cela dit Idrissa Seck a le droit am stratégie politique am. mais selaat mais sénégalais aussi dofu ñu de comme ni ma ko Kéba Mbaye waxee guddi googu na ma sénégalais ñëpp ngi tëdd waaye kenn nelawul de loolu am na solo de nit ñi dofuñu feebaruñu daayuñu te aussi réew mi c'est un fait mais aussi calculu nit ñi seen calcul de positionnement personnel ñi bëgg poste ñi bëgg xaalis ñi bëgg a yooyu yëpp nit ñi xam nañ y a tout ça aussi bref globalement hmm. politique nag y a quelque chose de très important moom la Badara wax wax na dëgg. Mhm. am na benn échéance buy ñëw ci la ñuy xamee choix c'est c'est la vérité. parce que Abdoulaye Wade dugg na ba tàyyi gouvernement Macky Sall gouvernement Abdou Diouf te deewu ko nekk président loolu dëgg la sauf que Badara époque boobu ak léegi c'est différent de. Mm. parce que parce que parce que Abdoulaye Wade bi muy dugg ci ab Abdou Diouf boobu c'était l'opposant absolu tey nag y a pas de vide dans l'espace politique. man waxuma ko Abdoulaye politique amul vide. Uh-huh. tey sa Seck day déplacé wu léegi keneen ñëw léegi jël place bi ba weesu ko. loolu aussi faw ngeen bàyyi ko seen calcul c'est très important. li ci des nag li mu wax dëgg la c'est-à-dire que aussi parce que analyse politique du gisaane. Mhm. te liy ñëw yàlla moo ko xam. oui mais prochaine échéance la ñuy xam ba xam sa Seck lii mu def option bu baax la wala bu bon la mais démarché bi daal moom. Mhm. mën nañ ko ngaañ. ok ah mais mais mais mais euh, pour suñu suñu gan gi. Mhm. politique rek la fi wax. wax fa yàlla xam nga xam nga aussi ni ngay ni ngay nattee ni ngay nattee mooy boo génnee ci biti sur cent sénégalais quatre-vingt-dix-neuf yi ils sont déçus loolay dëgg ñi nekk ci mbedd bi euh, Birima di nga dama ne sur cent sénégalais sur le cas Idrissa Seck sur cent sénégalais quatre-vingt-dix-neuf ils sont léegi xam nga lan mooy problème xam nga lan mooy problème xam nga lan laa est-ce que mun naa wax di nangu xam nga ah xam nga xam nga man quel que soit loo loo loo ñu munti wax rek Eh, na nga fexe rek ba bul insulter kenn fii mais bàyyi ma ma wax parce que man tu nu m'adresse pas à toi te comme depuis tey gi nii manteau Idrissa Seck bi nga sol léegi ñaari manteau nga bàyyi nit ñuy eggale dama ne dama ne non non non dëgg la parce que man du jour au lendemain tu deviens le le le le défenseur de kii de sa Seck taxaw ci kanam. mel ni ku ku ku. man défendre nga ko sax. non si yow ni ngay doon am na bés boo ko défendre mu tax. naa ah? ko def dëgg yaa ngi ñëw de yaa ngi ci yoon. donc donc man yéen suñu donc donc tey jii nii. tey jii nii mënuñu fexe ba duggum Idrissa Seck. mais yaa ko waroon tontu naa der li wax noonu man j'ai toujours défendu Idrissa Seck. Mm. avant depuis 2017 ba léegi j'ai toujours dit que Idrissa Seck ku baax la sama xarit la. Mm. avant ngay commencé jàkkaarloo yow su leen fekk yéen ñëpp. parce que. parce que je pense que ku nekk am na koo xam te diw xaritu diw la ça n'intéresse pas les Sénégalais. li ñu ki ñu ki ñu xam. man Sénégal amul compte moyen de rendre. Ah, ma seen benn. waaw ah, Birima comme toi. waaw est que. pas de que. est-ce que mën nga ma may. Ah. mën nga ma. je suis libre comme toi. Birima est-ce que mën nga ma respecter bàyyi ma ma wax. ngir yàlla keneen mënuma ko. kon dara waxu nit. der kon jëlal jëlal. yaa xam la nga. Pape Djibril l'argumentaire pour entrer. on va man je pense que ne